ربا وادي وارناني واكرم به ربا رديت عن المولى تعالى الذي ربا وادي وارناني واكرم به ربا asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan tey ñu ngi fii ci Touba Daaru Tanzil li ko waral nag mu nekk ngan gu am solo bu Serigne Abo Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Fadel ñëw fii tey seeti rakkam Cheikh Mouhamadou Mourtada ak mboolem mbokki taalibe yi mu nekk nag bis bu am solo boo xam ne biñ xëyee ubbi nañ ko ci njàngum alxuraan ak njàngum xasida kilifa yi ak mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di jóge fu nekk ngir ñëw di saafonteeg Cheikh Mouhamadou Mourtada ibnu Serigne Fallou ngir teewee bis bu mag bi nga xam ne Serigne Abo xalifa Cheikh Mouhamadou Fadel dana ko amal fii ci tuubaa Darou Tansi résidence Cheikh Mouhamadou Mourtada ibnu Serigne Fall waaw ko gisee nag biñ ñu xëyee délégation yi ak mbokki taalibe yi di jóge fu nekk di ñëw di siyaare si sëñ bi di saafonteeg moom di ko ndokkeel ci bis bu mag bi nga xam ne sëriñ Aboul Baraka mu ngi koy amal fii ci Touba Darou Tanzil xadimun lahu والسرح والخربان نجاتي من الأعداء والبار والبلاء غريبا وحيدا من عزيز ملا الجربان هداني تعالى بعد ما كدت هالكا بجاه الذي خسينا الهجم والغربان أنادي في سر وجهل وأرتجي سلائي وإسلائي بالأهل والتربى سلمت الأولى للغدا ثم كانني وكنز كتاب النبو يصف الكربى سلمت الأولى للغدا ثم كانني وكنز كتاب النبو يصف الكربى هداني لي ربي وأهدي بنوري ni ngeen ko gisee nag mu nekk teeruwaay bu am solo mbokki taalibe yépp génn ngir teeru sëñ bi tatagal ko dalal ko fii ci Touba Daaru Tanzil kër Cheikh Mouhamadou Mourtada ibnu Serigne Fallou mbokki taalibe yépp génn ak kilifa yépp ni ngeen ko gisee ñu koy teertu ak njàngum xasida mu am solo Gracias. والقرب والقربى جادوا الأهمال حقا وكلهم يبذر المعيز إلى الأرباب عليهم من المولى إله ورحمة كما سسوني بأسيافهم نبس الذي قلبته فلتبدلا هدى النمي الحجاب والكبر والكسبى عن الكرامات وكل بلا انتهاء بما فاق سني ولتسمي لي الصعبان يلا كن قريبا منيبا عنزا واكسف الرهبان نفيت الأذى عني فجل لي بأوبتي سريعا بلا كد ولي وسيل الأخبار لك سوري سيتني خادم النبي عليه صلاة منك تولي بها صعبا دعوتك بالمختار لكلهم وأسابي يا من كفاني بهم سسبا نفيت بهم عني العزى ثم كنت لي فلي طيب الرجعى ولي خلد الحسبان وسقت بك اللهم سغلي مراقبي دواما بجاه المصطفى واكفني كربان لوت صلاة ما صلاة لآله وأصحابه واجعل بي مزيد ربان يبصر فبشر من أتى لوني يبصروني بكونك خالدا على كل سيل سجي وفني النبان يبصروني بكونك خالدا على كل سيل لسجي وفني النبان أجب دعوتي ودين فيودا بك الكليم وخلد فيوداتي ولا تبكي سبان cey sëñ Tuba cey sëñ Tuba cey sëñ Tuba wala tatruki zakban wasirtu bi baaxin xaayirin xaadir law faadi wa jusmani wali yaqbalul kasba udimu loo ma insa ibadatan وارجو قبولا منه خطور سلسبا جعد كتاب الله مدي واتقي بتدليلي ما سرت وسارا لأبا علي لربي دين تدليلي وإني لا قولي أوب بي أبا لربي عملي ثم سكري بلا انتهاء حمدي وكانني وليرانا دائما أو ndes tuuti sëriñ bi egsi mbokk taalibe yëpp gàttandu ko teeru ko ak xasaayit ak kilifa yu bari yu àndal ci waa kër Cheikh Mouhamadou Fadil ak mbokk taalibe yi ni ngeen ko gisee ñu teeru ko ànd ak moom ba ci biir delluwaay bi ginnaaw bi nag sëriñ Mourtada Mbacke ibnu sëriñ Fallou yëkkati na fa ay kàddu di kàddi cantu ci dikk gi nga xam ne Cheikh dikk gi nga xam ne sëriñ Abou Mbacke dikk na ko fii ci Touba Daaru Tantin ko waaye seet ci mbokki taalibe yëpp ñu am ci mbégte bu baax a baax. لوحي وكالكبير وجسمي لمن لي وجالي سوى الوهبان نويت له شكرا كثيرا كما ما جنابي واسفي يوم الجوى الأخبار لا جل سكري سداني بفلي وجاي الذي مديلو سالني أدبار لا جل سكري سداني بفلي وجاء الذي منيل سالني حبا هادي الى داري سلام التي بها انادي بسكر الذي طيب القلب نفعني الشيطان ولا بكيدي وقيل جادا منه من امتي دبا كفاني حفيظ خير مانع هنا سكوكا ووسواسا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 Abdou sëriñ di jëmmi ci nun sëriñ Mourtala Mbacke mu Cheikh Mamadou Fadal nee na mi ngi lay dalal jàmm ci sa biir kër ci sa biiru njaboot ki ñu jaboote te moom nu moo ñëw tey ci yëfam muy Cheikh Abdoul Baraka moom Cheikh Mamadou Fadal yàlla na fi yàgg te sëriñ bi. Serigne Moutala nee na xolam sedd na guy tey nee na mbégte mii mu am tey de musta am mbégte mu ni toll. te leer na ne ko bala koo amati danga fee dellusiwaat dellusi gu mel ni gii nga fi ñëwee rek waaye mënut a am mukk lu ko mayaat mbégte mu toll nii ndax yaakaaru dara lu may Serigne Fallou te yaa fii Serigne Fallou nee na nga jàppante ak moom bëgg ko lool yaatal ko ci sa bopp lool xajoo ko lool xaritoo ko lool ba nekk moom di benn nekk ak moom di lenn. ba nee na bis bii bi mu ko bëggee ci yow da nga ko ko jàpp lool ngi wan ko ne ko foo ko soxlaa ak noo ko soxlaa mu ne loola dong doyoon na sëkk ngan gi ci moom réyoon na ci moom lool kon nee na boo xat-xati jamono fi mu toll xam na ko soo bàyyee lépp tey ñëw fii fekk si ko fekk si bokki taalibe yi fekk si xarit yi fekk si wëllëre yi man leen ñaanal yàlla nee loolu day réy na fi moom lool nee nag li tax mu def ko mooy yaakaari jaam ñi daal jéggiwul sëriñ Falilu ci genn wàll bëgg giñ ko bëgg saayir rek baatin fees na leen dell ba tax na yow mi nga xam ne yaa fi jëm sëriñ Falilu ji foofu jëm fu nekk rek aajo yooyu yëpp foofu lay jublu te aajo yooyu yëpp ngay bokk faj nee na loolee moo waral nag mu taamu woon sëg dikk fii ngir jaami yàlla yi fi ñu toll ci ay xat-xat ak li ñu bëgg ci ay ñaan diggante seen diggante ak sëriñ Falilu ak yaakaar ji ñu am ci sëriñ Fallu te sëriñ Fallu waxoon leen ne fii yaakaar du fi tase te yaakaar ji mbàkk yëpp sa jëmu jëre jublu nee na loolu moo waraloon mu ne na sakku nga ñëw teew fii giseeg bokk yi giseet xarit yi giseet wëllëre yi giseet sa taalibe yi nga xam ne amuñu kenn ku du yow ñun nag sant nañ yàlla suñu borom bu baax waxoon naa leen ko ci bi nga agseegul maa ngi dellu di ko salaat dañoo am tawféex am mbégte mu rëy ñun kër sëriñ Falilou li nu ko amee ngir jëmmi sëñ Tuubaa it mooy Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridina yoon mi moom mooy jërëjëfi sëñ Bamba jaral la ko Cheikh Ibra Fall wees gu ko li waral muy loolu itam nag mooy sëriñ suñu borom daa wax ci alxuraan ne rasulullahi sallallahu alayhi wasallam la ko wax war a fax naa la ka sow tur ak sama tur lay boole yëkkati loolee yàlla digle ci alxuraan nag yàlla lu mu digle ci alxuraan mbaa mu wax lu ko mbaa mu def lu ko Serigne Touba mandargaal na ko ba ñëpp xam ko loolaa waral mu tàmpee boppam ak jëmmi Cheikh Ibra kenn jàngalu ko kenn benn Serigne jàngalu ko taalibeem benn baay jàngalu ko doomam kenn ku ci nekk yaa koy wax ci sa coobare bopp wax ne am sa am sa tawféex ak sa xol bu sedd fudd sant sëñ Touba ni jërëjëf sëñ Bamba na jëral ko Cheikh Rafal loolee ñu doon wax nag moo taxoon Cheikh Rafal waxoon Serigne Touba Serigne Fallu ne ko bul ma fàtte bul ma fàtte joojee nag moo waraloon sëñ fa sëñ sëñ bi liggéey jumaa ji ba mu yegg mu daal ci def sooroor bii muy 96 mètres mu teg ci lamp muy xam li muy mu xam li muy jëriñ mu taal ko yëkkati junni ne ko xam nu tudd ñi ne rasulullah ñi ne sunu borom ñi ne sëñ Tuubaa mu ne yeyoo nañ ko waaye waxuma ñooñu tuddi naa ko Baye Cheikh Ibra Lamp Fall nga tuddi naa ko Cheikh Ibra ndax xam ngeen lu ma ci juluñu déer mu moo woon moo ne woon bu ma fàtte waaye yaakaar naa ko kon nag fi mu toll yëmatul ci fàtte ak fàttaliku da ko fat def ko muy boppam kooku mooy Serigne Abou Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadal moom Serigne Touba Serigne Abou Mbacké moom soxna Maam Say moom Serigne Moussa Fall moom Cheikh Ibra nañ fi yàgg te ànd ak wér nañ fi yàgg ñëw yàlla nañ la yàgg a teeru yàlla nañ la yàgg a teral li nga yéene ci kappaaru Serigne Fallilu yàlla nañ Serigne Fallilu jàppale boppam ba nga yeggale ko te dara ñu koo ci barke Cheikh Mamadou Fadal Serigne bi xolam sedd ay bokkam seen wa rahmatullahi من كان شكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا شكري لرب كريم من كان شكارا وأرتجي منه الدارين أبكارا كتبت شكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وسكرا وذكارا وجهت وجهي sahri nabi sanadi lil akrami rafi wahabi zaka ولم يزل جل قاهرا وجبارا فجاهتني ربي بالآلاء هب لي أن أعود للبريء